ñoo ngi leen di nuyu euh, di jégalu également ci quelques minutes retard yi maa ngi tudd Aliou Gérard Paita bokk ci secrétariat exécutif national bu FRAPP euh, tey nag ñun waa FRAPP ñu ñëw te conférence de presse bi euh, ngir addu jëmale ci li nga xamante ne Sénégal ñun ñëpp gis nañ ko mooy magasin bi ñuy woowee China Mall gis nañu après bobu on a vu que ay Auchan Carrefour ak ñom ku Sénégal wante amna benen itamit China Mall bi nga China Mall euh motay nak FRAPP dina daal di jël tey mbir conférence de presse bi TD. Eh, camarade Gueye mom dina lire li nga

couvrant une superficie de 7500 m2, China Mall propose différents rayons quincaillerie, produits de beauté, luminaires, électroménager, vaisselle, ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, fleurs, meubles, jouets, objets décoratifs, articles d'anniversaire, machines de sport, mobilier de bureau, salon, etc. Cette implantation constitue donc une menace pour nos opérateurs économiques locaux à savoir au Sénégal, 98%, 99,8% des entreprises sont des petits, petites et moyennes entreprises, des PME, dont 81,8% sont des entrepreneurs. Sur ces 81,8%, 58,8% euh, s'activent dans le secteur euh, du commerce et sont en général dans un entrepreneuriat de survie. C'est pour ça le FRAP lance un appel à ses commerçants pour qu'ils se mobilisent et qu'ils se euh, battent contre euh, cette euh, mort programmée du commerce sénégalais. Donc, contre cette mort programmée de la distribution sénégalaise, le FRAP lance la campagne China Mall dégage ou en chinois China Mall cette initiative est une continuité des actions menées à travers Auchan Dégage, Carrefour Dégage et qui ont arraché des victoires insuffisantes mais symboliques. En effet, la mobilisation du FRAP et des commerçants a permis au Sénégal d'avoir le décret 2018-1888 du, 14, euh, du 13 octobre 2018 organisant la grande distribution et l'arrêté 1499 du 25 janvier 2019 fixant les conditions les modalités de délivrance et, de l'autorisation préalable d'ouverture des commerces de grande distribution. D'ailleurs, le, dit, euh, le dit arrêté stipule que les distances minimales à vol d'oiseau entre deux magasins de grande surface doit être de 800 mètres. Le frappe tient à préciser que suivant cette règle, l'implantation de China Mall est illégale, car l'arrêté dit 800 mètres et China Mall est à 678 mètres à vol d'oiseau de l'hypermarché de Auchan-Mermoz et 779 mètres de Auchan-Mermoz, le plus petit Auchan. Cette situation démontre à suffisance que le gouvernement du Sénégal est incapable de faire respecter ses règles aux multinationales. Le FRAP invite à, à soutenir le quincailler du coin, le jeune menuisier du quartier, la brave vendeuse en ligne pour un véritable développement économique endogène. Le FRAP réitère encore son appel à tous les Sénégalais à soutenir les commerçants sénégalais et aux commerçants sénégalais à se battre pour une distribution endogène au Sénégal. Le FRAP profite de ces tribunes pour faire savoir que l'ouverture de ces différents magasins de la grande distribution suit le calendrier afro-impérialiste et suicidaire acté par les gouvernements sénégalais euh, africains, dont le Sénégal, à travers la zone de libre-échange continentale qu'on appelle la ZLECA. Le FRAP continue d'exiger la fermeture de tous les magasins Auchan, Carrefour et China Mall illégalement constitués. La publication des études d'impact d'implantation de ces multinationales de la grande distribution et des assises nationales de la grande distribution.

tënk ko ci wolof ginnaaw bi ñu waxee woon doomi réew mooy tabax réew dañuy wéy di continuer di wax euh, lii nga xamante ni amaloon nañ ko muy campagne bu ñu doon wax Auchan dégage Carrefour dégage dañuy continuer di wax China mal dégage China Mall dégage li ñu nemmeeku te seetlu ko dañoo nekk ci benn réew bu ñuy wax Sénégal nga xamante ni suñu ay ministère dooree ko ci ministre bi nga xamante ni mooy ministre du commerce dafa xàllal yoon yi nga xamante ni moom mooy China Mall fii nga xamante ni moom mooy ca ndaxte bu ñu seetloo li nga xamante ni moom lañ leen daggal ci superficie toll na ci juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ci ci ci espace muy doon loo xamante ni lu ñu ñaawlu la di ko naqarlu ginnaaw bi ñu nemmeekoo li nga xamante ni moom mooy ay euh, ay ay ay article bu ñu ko li nga xamante ni moom mooy ay ay liñ fay jaay ci ci wàllu produit quincaillerie yi liñ fay jaay ci wàllu produit de beauté liñ fay jaay ci wàllu électroménager liñ fay jaay ci wàllu ndab ak li nga xamante ni moom la ñuy utiliser ci cuisine dañ ko ko dañu dañu gis ne dafa jéggi dayo ba ci li nga xamante ni moom mooy foyekaayu xale ci loolu dañu continuer di wéy di naqarlu implantation bi nga xamante ni moom la China Mall implanté wu fii ci Sénégal et mu doon loo xamante ni dëppowul benn yoon ak li nga xamante ni moom lañ doon xaar ak liñ doon xeex Sénégal nag moo nekk réew bi nga xamante ni téeméer boo jël ci ay entreprise juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yu toftal juróom-ñett ay entreprise yoo xamante ni yu ndaw la wala yu digg doom ci loolu lim boobu sax mën nañoo nemmeeku ne juróom fukk ak juróom-ñett lu tombal ñetti ñetti poñ nekk nañ ay ay ay entreprise yoo xamante ni mën nañ ko sax bañ a duppee entreprise mais commerce lañ nekk loolu nag mu nekk benn taxaw seetlu boo xamante ni boo ko amee ci réew war nga xool nan ngay ibbee lii nga xamante ni moom mooy sa commerce ba doxandeem yi jógee ci ci ci bitim réew bu ñu ñëwee di la attaqué ci wàllu bu ne ba ndaw yi nga xamante ni ñoom nga am du ñu mën a gis seen bopp ba waral lii nga xamante ni moom mooy dee yi ñu gis ci Méditerranée yi dee yi ñuy gis ci désert du sara wala yeneen ak yeneen ak yeneen ñi nga xamante ni ñu ngi koy faral di gis bu pëccoxoo am ay ndaw di profité di def leneen lu ci euh, lu ci bokkul. dinañ wéy tamit dina xarlu ndaxte bu ngeen bu ngeen seetloo en deux mille dix huit bi ñu fiy xeex ci wàllu Auchan dégage xeex nañ ba sonn donte naam am na yoo xamante ni gañe woon nañ ko bokkoon nañ ci décret bii nga xamante ni moom mooy décret euh, deux mille dix huit mille huit cent quatre vingt huit du trois octobre deux mille dix huit. décret boobu kat ay lay donte sax taxu ñu woon a xeex nekk décret boo xamante ni jàpp nañ ne lu lu lu lu doye dal suñu xeex la woon ndaxte jàppoon nañ ne mënoon nañu am lu gën décret boobu nga xamante ni amoon nañ ko en deux dix huit waaye décret boobu sax dañu gis ne France xaddem décret boobu utiliser wuñ ko ci lii nga xamante ni moom mooy suñu commerce ndaxte dañoo am réew boo xamante ni ñi ñi jiite dañuy raay dañuy. Euh, xalal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee doxande doxandeem yi jógee ci bitim réew te di seetaan di nasaxal ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomu biir réew mi moo tax dañuy wéy di wax di ñaawlu di naqarlu li nga xamante ni moom mooy nekkin ak sos bi nga xamante ni China Mal cos na ko te Auchan sosoon ko ci te Carrefour sosoon ko fii te ñeneen sax Indiana wala ñeneen wala Lidl wala euh, Walmart ak kum ci manti doon dinañ continuer di wéy di am taxawaay bi nga xamante ni képp ko fi taxawee ci taxawaay bu dëppoowul ak li nga xamante ni moom la ñuy xaar dinañ continuer di yëkkati suñu kàddu di naqarlu li nga xamante ni moom mooy implantation loolu nga xamante ni moom mooy grande surface yi bu ñu ñëwaatee toujours ci décret bi décret bi dafa wax ci diggante ñaari marché tubaab yi bu mel ni Auchan wala Carrefour ak wala China ak Carrefour wala China Mall ak Auchan lum gàtt-gàtt bu fekkee ne dañ koy natt ci naawum picc dinañ gis ne war na tolloog lu mat huit cent mètres ay fii dañoo gis ne li ñu gis li ñuy xayma dafa dëppoowul ak li nga xamante ni moom moo am ci décret boobu et que ñun suñu ay ministre ñoom ñooy nasaxal li nga xamante ni moom mooy ay décret yi nga xamante ni président moo koy jël kon ngalawaay ñun fan lañ jëm parce que ñooñu kat ñoom ñoo waroon a aar ñoom ñoo waroon a yiir li nga xamante ni moom mooy dogal yi nga xamante ni président mi ngi koy jël ak gouvernement bi waaye ñoom la ñu nemmeeku ne ñoom ñooy continuer di wéy di nasaxal li nga xamante ni moom mooy Sénégal li mooy ay institution et loolu tamit dañ koy ñaawlu et ci ñaawlu bi du ñu am rek ci ñaawlu dañu continuer di wax lii mënul wéy dañoo war a taxaw def taxaw seetlu ci lii nga xamante ni moom mooy implantation yi fi am frappe nag dina soutenir képp ku nga xamante ni quincaillerie nga yor nga nekk ci koñ bi wala nga nekk ci koñ ba ca des képp ku nga xamante ni da ngay jaay ay ndab képp ku nga xamante ni commerçant nga donte sax yaa ngi ci réseau sociaux yi di jaay li ngay jaay di ci am sa sutura ak sa teranga ñu ngi lay lancer un appel di la wax ne ñëwal ñu ànd xeex xeet bi ndaxte njort nañ ne ñii kat su luñ bëgg génne ñu Sénégal ba pare duñ xam fu ñuy jëm et fuñ fu dem fu ne duñ fa am place moo tax dinañ continuer di wéel xeex bi ci grande surface dégage et que duñ ci am benn euh, xaj ak que ça soit mu doon que ça soit mu Carrefour que ça soit mu doon euh, China Mall que ça soit mu doon euh, Lidl kum ci manti doon rek dinañ continuer di wéy di amal li nga xamante ni moom mooy xeex ni grande surface dégage waaye dinañ continuer di wax li doon wax en 2018, muy lii nga xamante ni moom mooy luñ jot ne mooy lu gën a mën a ñàkk lu gën a mën a ñàkk ci wàllu implantation yeeg yi ni ndaxte tat li war a am déjà ba war a am ba pare mooy nañ tëj yi nga xamante ni dañ leen ibbi ci anam yi nga xamante ni dëppoowul ak yoon te bëri nañ ci yu ci bëri cité woon nañ ko fi suñu confrance yu bëri ñëwoon nañ ci beneen bi ci topp nañu def benn publication parce que kat njort nañ ne euh, ministère du commerce bi ñuy dem bay accorder ñi nga xamante ni mooy China Mall ak ñeneen ñi ni mel defoon nañ benn étude d'impact bi wane ne ñii kat bu ñu ibbee fii ñu nekk du yàq dara ci keneen ki nga xam ne dafa nekk ci ruqam di daan et que lii moom mooy luy suturaalam bi nga xamante ni ci la yaakaar moo tax ñu jàpp ne étude boobu noonu mënul ñàkk waaye tamit lu ñuy xëy di lu ñuy continuer di wax rek mooy assise de la distribution ñi ngi wo ñi ngi ñi ngi wo commerçant yépp ñi ngi wo sénégalais yépp de tout bord et gouvernement bi moo war a jiitu ci loolu nam ñun ñoo mais moom moo ko waroon a et malheureusement jot nañ ne gouvernement bii nga xamante ni moom assister à ce que Auchan ak Carrefour ñuy am distance yoo xamante ni dëppoowul ak li décret bi wax wala China Mall ak Auchan Mermoz dëppoowul ak li décret bi wax ñu toog seetaan ne meng yaakaaruñu ne ne gouvernement bi moom mooy woote li nga xamee moom mooy euh, assise de la distribution waaye nag dinañ wéy di amal xeex bi parce que nag jàpp nañ ne lii waratul mën a nekk ndaxte ndaw yi nekk ci biir Sénégal xëy na bu ñu xoolee ci statistiques yu mujj yi ca jamono woo trois cent mille emploi yoo demandeur d' yoo gis trente mille ñoo ci daan am xëy nag boobaak léegi li yokk ci lim bi dafa ëpp doole dafa ëpp doole ba nga xamante ni ndaw ñi amatuñu benn yaakaar moo tax ñun jàpp nañ ne waruñu taxaw rek kontante wu rek gis lii nga xamante ni moom mooy China Mall ibbeeku ibbi ay bortam mu yaatu lool nit ñi dem di am visiter di gis ak leneen ak leneen waaye dañ ko war a xeex ba suñu doom yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal ñu gis seen bopp ci lii nga xamante ni mooy Sénégal. et loolu nag duñ ci xaar kenn dañuy jóg képp ku ñëw fekk ñu ci xeex bi dinañ amal xeex bi dinañ ko wéyee am comme niñ ko daan amalee. waaye dinañ woo tamit sénégalais yi nga xamante ni ci bépp boor que nga nekk commerçant que nga ñàkk nekk commerçant dinañ leen woo ñu amal xeex bi ci jàmm ak salaam ñu ngi leen di sant di leen gërëm le secrétariat exécutif national du FRAPP. ci liñ nemmeeku déjà maa ngi koy wax sànq. Euh, boo xoolee li décret bi wax décret 1888 bu 2018 daf ne diggante Auchan Mermoz ak euh, China Mall dafa war a nekk ci 800 mètres.

bu ndaw bi mooy bu nekk Auchan Mermoz bi mooy sept cent sept cent soixante mètres c'est-à-dire loolu rek dafa dàq loolu rek dafa tëj li nga xamante ni moom mooy caay nombre ndaxte mën nañu sax ne naam bi ñuy décret bi di doog a génn parce que gisoon nañ ci ay irrégularité yu mel ni euh, champ bu bu bu bu Castor ak marché Castor matul un kilomètre te dañu woon marché Castor cest à suñu commerce ñun muy suñu marché yi nga xamante ni moom la suñu nday yi daan duggee ak seen marché yi ñoom dafa war a mat un kilomètre vol d'oiseau mais boobu benn irrégularité la woon mën nañu jël tamit Gibraltar Auchan ba fa nekk ak marché Castor Tilène buñ ko xoolee dañuy gis ne ñaar yooyu noonu matul un kilomètre et que yooyu xëy na ay jafe-jafe la woon avant décret bi di am mais bii décret dafa am ba pare bii dafa dafa dafa installé wu ci ci ci lu dul yoon et que bokku na ci forme bi déjà dénoncé ko wone ne lii dafa am ay irrégularité matul li ñu wax et que di du ñu am rek ci lii danañ bind danañ dox danañ ci def luñ ci wax voilà dinañ bind yoon dinañ xool bu yoon deful li mu wara a def dinañ wàcc sur le terrain euh, xool ban forme lañuy lañuy utiliser ba nga xamante ni lii mu lañ nemmeeku te ministère du commerce euh, président jëloon dogal boobu moom mu seetaan loolu ba loolu am ñun dinañ leen faire revenir à la raison donc, s'agissant de la date de démarrage de la campagne, cette conférence de presse-là marque, marque le démarrage de la campagne. C'est une conférence de presse pour euh, appeler tous les Sénégalais euh, à venir euh, se joindre à cette campagne, spécifiquement les commerçants. Et donc, c'est aujourd'hui le lancement de la campagne, comme toutes les autres campagnes. C'est plus une, même, une continuité d'une campagne qui existe déjà. Parce qu'on a déjà une campagne au champ dégage, Carrefour dégage. C'est une continuité des campagnes sur la distribution. Euh, en ce qui concerne les, euh, les actes par rapport à Mall euh, vous avez vu que quand on a commencé les actions avec Auchan et Carrefour, on a eu le décret. Donc le décret était, on va dire, une, une consolation. Mais aujourd'hui, Mall a violé ce décret. Donc la première action, c'est vraiment d'attaquer l'implantation de Mall de l'attaquer en justice, qui, parce que son implantation viole deux fois via Auchan, euh, et, l'hyper Auchan euh, de Mermoz, euh, les distances entre ces deux, entre et ces deux supermarchés euh, violent ce décret. Donc, sur les autres, sur les Auchan de, de Gibraltar, Auchan de Parcelles, qui est, qui est aussi à moins d'un kilomètre de, de marché Casbah, ce qu'on nous avait mis comme argument, c'était que l'implantation a été faite avant le décret. Mais là, cette implantation a été faite après le décret. Donc, on appelle tout, euh, on va y aller, euh, comme, comme pour toutes nos campagnes, de manière crescendo. On va déjà saisir la justice, on va saisir le gouvernement du Sénégal et on va appeler tous les commerçants à venir nous rejoindre pour qu'on se mobilise, pour qu'on ferme définitivement euh, China Mall qui est implanté illégalement au Sénégal.